Abonnez-vous à cette chaîne YouTube DKR221. Vous les faire cloche cloches. Vous pouvez faire des dikkati na Sénégal de fi mu ne moo tëggoon itama ñu koy tëggee ci boor bu ne ca bitim réew Le Soleil yéene kaay ne moo taxit nguurug Sénégal de sol na yére sapeur pompier ngir fas yéene fay gépp daay goo xam ne bitim réew ubbi nañ ko ci réew mi di lakk kay réew mi jëx-jëxi ñuy wax yoo xam ne maar day taali ci réewum Sénégal Le Soleil naan gouvernement gaa ngay leeral su soi naan man bugaan gay danee nga naan leen cam te naan ci la man mandat yéene kaay lan moo dal laa bëgg xam mbaadu suñum réew nag dëgg-dëgg dafa dëgg liggéeyu jàmbur ci 24 heures yéene kaay muy xamle ni kaddu yi ñu yëkkati démb waroon na ñaaw na du dëgg le soleil yéene kaay ne ko déet gouvernement gu Sénégal kay moo doon andi ay gindi ci lan moo tax nag ñu coupé signalu wal fajri bugaan géey dani ci tribune yéene kaay naan ko dara da ngeen koo tëj ndax da ngeen bañ wal fu wane la nga xam ne neen télévision yi artu woon ngeen leen ba sañatuñ koo wane te ko wane ngeen tëj ko niki ni ngeen def wal fajri loolu la le soleil yéene kaay naan kon gouvernement gu Sénégal nee na feetuk tabaski mën naa neex ña ngay joxe assurance ci loo xam ne askan wi bëgg ko ñu daal de Bougane Gueye Dany ci l'indépendant yéen kaay naan kon tabaski ren gii la ngeen di wax ba mu jaar yoon dama koo gisul te la ngeen wax ne tabaski bi dana jaar yoon daf noo yayul waa lu tax waxu leen ci xëyu ndaw yi lu tax waxu leen ci askan woo xam ni sonn na ndax njëg yu metti lan moo tax waxu leen ci location bi ngeen ni da ngeen koy wàññi furaas le soleil yéen kaay naan kon Bougane mayel gouvernement gi mu wax ndax wax na ci manifestation yi nga xam ne am na gannaaw ba ñu tëjee Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany naan leen tëjub Ousmane Sonko googee la ngeen ci wax nga xam ne seen xam-xam màcc hmm? na ci ñoo cay wax waaye këram ga ngeen ko tëj tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon si te kër góor gi ngeen fattuñu ndax génn nit suñu njaboot gi dematuñu dikk njabootu Ousmane Sonko ngeen xoqatal leen bundu xatal leen ci réew gi ñu dëkk kenn koo xam ne nangu na dëgg laa ne du nangu lii ngeen xam ne teg ngeen ko Ousmane Sonko Le Soleil yéen a kaay naan kon gouvernement gaa ngi wax ba tey nee ñu dañuy ubbi ab enquête judiciaire ngir xam dëgg-dëgg lan mooy yàqu keroog ba nga xam ne manifeste am na ci réew mi Amadou Ba naan toppit ña nga xam ne ñoo ko sabab bugaan gay kaay naan leen ubbi leen ab enquête ci ñi nga xam ne faatu nañ ci manifeste yi ba nuppi ubbi enquête ci ñi nga xam ne dañoo yéegoon ci pick-up ànd ak takk der yu réewum Sénégal ñoom ña nga xam ne ay civil lan di tiire ci askan wi yor yor yéen kaay naan gouvernement gu Sénégal tey ma fàttali leen ñeen fukk ak juróom benn ndaw yi nga xam ne faatu nañu te ñoom ñëpp nag ci diirub ñaari at yi la ñu faatu ci réew mi te coowal Sonko ak Adji Sarr boo xun ma moo leen faat yo yor naan koon ñaar fukk ci doomu aadama faatu nañu diggante benn fan ñetti fan ci weeru juin limal fàllu seen faatu na Ousmane Badja faatu na Souleymane Sano faatu na Lansana Sakho faatu na Basirou Sarr faatu na El Hadji Mamadou faatu na ñu gën ko xam ci Boga Mor Ndiaye faatu na Khadim Ba faatu na Babacar Samb ñu gën ko xam ci Mbay faatu na Doudou Diène ñu gën ko xam ci Petit faatu na Babacar Diémé faatu na Ibrahima Drago faatu na Mohamed Silla faatu na Ismaïla Traoré faatu na Babacar Mbay Silla faatu na Babacar Ndoy Mbay Ndoy faatu na Tamsir Cissé faatu na Abdoulaye faatu na Mame Balla Sarr faatu na Seni Koli faatu na na Souleymane Danfa Sarr faatu na Sidi jaata faatu na Umar Sarr faatu na laata ñoom ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi faat nañu Alioune Bodian fukki fan ak juróom ci weeru mai 2023 ñu faat Pape Amadou Keita faatit Ismaïla Diédhiou fukki fan ak juróom benn ci weeru mars faat nañ Mamadou Korkaba faat nañ Gora Diop fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin 2022 faat nañ Alexis Abdoulaye Diatta faat Serigne Mame Sankhé faat Idrissa Goudiaby ñeenti commerçant daal di faatu ci Colobane mars 2021 fukki bakkan ak ñeent rod na bu naa ma Simpa Sagna faatu ca Masariñ Gueye faatu ca Alassane Bari faatu ca Baye Cheikh Diop faatu ca Pape Sadio Camara faatu ca Chérif Abdoulaye Mané faatu ca Famara Goudiaby faatu ca Modou Ndiaye faatu ca Pape Sidi Mbaye faatu ca Mansour caam faatu ca Cheikh Ibrahima Koli faatu ca Cheikhouna Ndiaye faatu ca Cheikh Wade faatu ca Moussa Dramé faatu ca Le Soleil yéene kaay naan teewul gouvernement gi nee ñu daañu ubbi ab l'enquête xool dëgg-dëgg ñan ñooy déstabiliser réewum Sénégal xool nag lan moo ko sabab Bougane Gueye Dany ci turbine yéen a kaay naan kon yéen a njiit yéen a bëgg xool ñi ngeen di àndal ci élection yi waaye yéen ak seen njiit yéen bëgg dàq élection yi yéen ak seen njiit yéen a fi bëgg sampuwaat 2024 duñu ko nangu gouvernement gi ci la soleil yéen a kaay naan vidéo yi nga xam ne ñi ngi gis waa bitim réew di ko wane daanu ci ubbi ak enquête ndax nag am nay montage Bougane Gueye Dany ci turbine yéen a kaay naan leen montage u lan la ngeen tere télé Sénégal yi wane ko la bitim réew wane benn montage amu ca ay nervi ñoo fi nekk di tiira ci askan wi le soleil a naan kon en tout cas premier ministre amadu Ba weddi na la nga xam ni mooy négociation diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall Ismaïla Madior Fall garde de Sceaux naan Ousmane Sonko day bés bu rafet la ñuy xaar ci moom maanaam juge bi daal di bind kayit bi nga xam ne moo war a tax ñu jàppi ko moom Ousmane Sonko vox populi naan man ña ngay xaar jàppam réew mi ko di jee naan kon te du yàgg ndax gaa yi wax nañ ca Walf ko di jee naan kon mbaadu coowal Ousmane Sonko nag dañ ko nar a àttewaat bugaan ngay ci yéene kaay bi naan leen la gouvernement bi wax ma ne la ku am nopp gar mi xam ne du dëgg las yéene kaay naan tere terewul gouvernement gaa ngay xupp l'info yéene kaay naan rek ci nag di chargé ñoo xam ne dañoo bëgg nërmee état de droit ci réew mi direct naan kon ab gouvernement gu taxaw temm ci état de droit ñëwaat ci réewum Sénégal la ñu am l'évidence yéene kaay naan kon Bougane Gueye Dany nee la ngeen teg laa la wax la ñuy teggi fee ndax du dëgg te naan leen ci l'exclusive yéene kaay xam nga kàcc moom boo ko tegee jaarale ko ci buntu soo duggee da fekk dëgg moom a coowal Ousmane Sonko li Dakar Times naan maan Amadou Ba ma ngay xamle ni senegal ab état de droit la dee su nangu nag ku koy caxat-caxatee nekk ci réew moo xam ne danga naan saa bu leen neexee ngeen taal saa bu leen neexee ngeen fay du fi amee maître Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall Antoine Félix jom ak Abdou Karim Fofana waxtaane nan jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci réew mi waaye nërmeel gi nga xam ne bëgg nañ ko nërmeel ak suuxal réewum Sénégal yéen kaay naan kon bu leen leeree ne yeeyu leen kenn rek mu baax libération yéen kaay naan kon terewul ay ñooñu Ousmane Sonko ñu ngi leen di làq jant enquête bi wala ñu nekk ci contrôle judiciaire l'exclusive yéene kaay naan maan ci coowal Ousmane Sonko lii naroon nañ ci nag rëppal direction générale bu impôt domaine directeur général ba bi lépp ña ngi koy daal di matale tey bu ngeen xëyee di wax waxi gréew bëgg xam ne bokku ci l'indépendant yéene kaay naan maan directeur général ba Abdoulaye Diagne ma ngay dal loo xelu ña nga xam ñooy ñëw ci direction générale bu impôt domaine naan leen lañu liggéey démb ci wàllu taxe musuñu koo am daanaka téeméer boo jël fukk ak benn ya ñoo topp mouvement d'humeur bi ca nag réewu démb gi amul lenn loo xam ne wàññi na ko ca nañ doon recouvrer recettes yi ndax nag syndicat bu liggéeykatu administration fiscale bi ñoom ci boppam ñoo toppul boobu le gréew moo tax nag démb li ëpp ci liggéeykat yi liggéey nañ l'exclusive yéen kaay nan kon ba fukki milliards ak ñaar tegu na ca la nga xam ni moom lañ daan liggéey bés normal ca la nga xam ni nag fi mu ne nee ñu dañ leen cooy yóbbu ca cour pénal international la lii ay mbele mbele la wax ji wax ji mooy buzz la ñenn ñi bëgg ci ñun Antoine Félix Diome naan la ñu wër ndomb Ousmane Sonko mën na dañ ndànk-ndànk Ismaïla Madior Fall naan Ousmane Sonko nga tënku ca la nga xam ne moom la ñuy xaaree ci juge bi Abdou Karim Fafan naan manifestant yàq nañ waaye ba nii nërmeelul benn yoon koomu réewum Sénégal l'observateur mel ni ku naan kon bu ngeen xiiroog ŋaayoo ba nuppi ngeen wax ci réewum Sénégal ak i jafe-jafeem ñetti góor ca kër Momar Sarr bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañoo ami soxna ñoo jël benn soxna soo xam ne dafa am borom kër daal di koy takk